Ousmane waaw ndax xam naa ni 4 avril bi neex na lool <laughs> dama bëggoon nag am tuuti xam naa version rouge waaye da doon ëpp wala tey ma laal rouge bi kese. yeneen couleur <laughs> nañ ma ko baal bu <laughs> bañ a bu <laughs> bañ a nekk drapeau xam nga lan lay bañ eh. Aliou bu fi toogee mu ne non ay bus vert jaune rouge mais day xañaaral day xañaaral xam nga bu fi ñëwoon indi vert te xam dina ma xool ba mu neex mu ne aram tey dafa xam couleur te dafa xam couleur ndax eh. tey dafa yàlla da koo may waaw yàlla da ko may ci dégg dégg ci wàllu couleur laal sax mant no je te dis ah Aliou waaw mant gis nga oh vert caaj surtout si ngelaw gi nii doo soññ bon Aliou xoolal même beer sax dafa soppeeku. non Aliou tey fi nga génn fort. li yëpp ci indépendance. Hmm. waaw eh. sa casque bi yëpp ni commencé nañu waaye <laughs> si réew mi foo génn ñu lay wax paasal paasal bi ko neex lay def. pass bi moom daa yaa gën a soppeeku na de. paasal réew mi soppeeku na de. réew mi soppeeku na de. léegi loolu neex soppeeku na. dox ndànk doo ñaq doo takk mbedd mi sax boo yaa ngi koy nettoyer envie de l'envie un nouvel air pas de stress pas de de trouve Youssou Ndour Pa Ousmane ak ak samaan réew mi soppeeku way kañ nga may bàyyi ma continue jërëjëf fukki at ak ñaar nu fatt nu dem na alors Pa Ousmane ba ah, dugg si loolu. ah dinaa ci dugg kat ñu ñëw ci. ah Aliou sax actualité ma ne na ah. <laughs> ñu kenn du ko wax. conseil supérieur la magistrature. Mm. Euh, ci xibaar yi ñu jot mu bàyyi ko ci ku mel ma Madiambal Diagne ñu ngi xamal ne. Euh, président Diomaye euh, annulé na nga xamante ne mooy dogal yi président Macky Sall jëloon dinañ ci ñëw leneen itam lu am solo nee nañ ñu APR kat amadu Ba jóge na fa euh, keneen koo xam ne gis nañ ko ci démb su ma juumul muy di Mansour Faye moom itam doxantu ca nag ngir jëli Euh, formulaire ngir daal di euh, def li nga xamante ne rek moo di déclaration de patrimoine ci mu yoree ba noppi di génn loolu itam daañu ci taxaw ah ngoone di ko xaar ba nee naa ngoone moom dafa dafa tegal gars yi ay ay traceur wala lu xew ba ah, bu ñu yeggee fenn fii mu mën koo mu mën koo fekkee am na solo Pape hmm. Ousmane amaguñu gouvernement xam naa sama gars yi itam dinañ ci dinañ ci wax ci kanam tuuti lay doon donc euh, ma ñëw ci borom mant gi ah <laughs> Ah, ah, am na bu fi amoon de vitamante <laughs> ak a baax su <laughs> waaw gis nga. Aliou nuyu nañu la. maa lay fay euh, waaw. dama laa nam moom. grand. donc rek. vraiment. président xale xale yee xew. <laughs> Eh, Aliou bu ma continué ma tontu wala ma ma. ay kilifa yi ay Magu Demba la. maa ngi nuyu Samba Peuzi. yow bàyyi Aliou mu nuyu. day génn de ah day génn. yow nuyoo ma ma tontu ma tontu ma tontu ma tontu ma tontu ma tontu non mais si nuyoo rek waaw. mënul mënul ñàkk de. waaw mënul ñàkk de fii moom dañu fi dee grand wàcc ak booy wala booy wàcc ak grand. mais mais booy est-ce que man xajuma si yow. Ama maa lay nuyu Ama Balde sama copain. waaw Serigne Touba xëy na si. waaw man maa xëy na si Serigne Touba laa lay wax. ak fu nekk la. dëkkawute bi ngeen di bàyyi. am na ci jàmm lañu commencé. non man lu ma wóorul ko wax. Aliou laa dëkk maa ma dëkk Guédiawaye. te da ngay jéggi te da ngay jéggi nga bàyyi Omar bi Cheikh bàyyi perte bi. déggoo déggoo suñu benn internaute Badara Sylla. nee na j'aime bien plateau même si des fois comme marché bu tas. convivialité boobu la. ñu ngi ci taatu garab. su laal la booy bi day bàyyi xel ci aram ci aram du moromam. <laughs> mais yow da nga sànni yow si yow. non man léegi dama la bàyyee sax combat bi. dafa am suba benn gaay. Assane da ko bu nekk Atlanta waa ji mu Atlanta. waa ji nee na jaral nga ko yow. boo bàyyiwul aral. <laughs> Ah. dina jógee Atlantique. <laughs> yow ba Sénégal dóor la ko. parce moom nee na aram ah. la. <laughs> c'est son combat. kala kala kala. aram ah. c'est son combat. Cheikh Souleymane maa ngi gis muy commentaire yi sax Cheikh Souleymane. ngi lay nuyu. mais Cheikh Souleymane boo boo dóor gon. nag ma bett de bu ma kii de parce que boo ma bettul moom. dara ko dara ko fëgg ma ngeen. jarul nga ñëw kii maa koy réglé yow toogal rek kii maa koy alors ñu bàyyi Aliou ouais, c'est un c'est, c'est un plaisir ouais, je, je je je répète encore ce que j'ai dit n'en déplaise à, à, à certains ala namoon naa la non non mais c'est un, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce grand plateau oui j' ai, j' ai pas le choix je suis obligé de rouler derrière. parce que nii ma yàlla bind. Aram est nommable. oui si non mais moo tax moo tax ñëpp di si même ñi nga xam ne ñi nga xam ne sax tolloowuñu pointir sax ak Aram di di di di xataraayu pour am ko. <laughs> mais c' est genre que rek. waaw ah. Aram moo Aram moo Aram xayul si yow. maintenant le choix appartient à Aram comme nous sommes en démocratie. non non yow day parrainage parce que fi mu toll nii kàddu gi si Aram. internaute ñoo leen def parrainage. non internaute yi ñoo mais internaute yi nag waa waa Pastef duñu voté de. <laughs> waaw ba tey voté nañ ba pare <laughs> ñoom ñoom bokkuñu <laughs> parce que bu ñu voté rek damay perte. d'accord. non non sant sant yàlla yàlla na yàlla sàmm c'est un plaisir de me retrouver ici c'est c'est grand garçon très intelligent très sympathique euh, avec qui parce que man quand je suis pas à je me tire et je suis bien ici on est bien je suis en face de mon petit frère Kilifeu Passane qui est là Cheikh Omar un garçon très intelligent jeune mais dooj bëgg yegg fu mu fu mu fu mu yegg ko yem rek waaye bu déggee genre jotaay danaan ñaan ñi am na ku ciy xataraay <laughs> et puis papa papa papa aussi euh, nitu jàmm la kenn du mer ndeysaan voilà très très kii très jërëjëf très généreux merci beaucoup moom moom kenn du ma. waay siyaaral ma ko waay. bon xalil Barham xalil Barham ñu ngi lay bëggee bu baax a baax. ak waa kër Barham. kilifa jaaraale ci ba nuyoo waale. ma jaaraale ci waaye bu ko def lis. non boole. non tey sama nuyoo bi dafay nekk. et puis tey nag ana kii ana ki kilifa sañ see ti nga nga war a. looloo nga def koy wax sànq. kii kii kilifa waxoon ci moom rek. sañ see ti nga li kilifa waxoon rek. booy Pa Moussa. <laughs> mu ngi jeexal benn. mu ngi ci yeneen plateau. bàyyi a Moussa nga néew. non Pa Moussa temps daa àgg nag de. l'homme l'homme des dix plateaux par jour. <laughs> non mu ngi yegg si mu ngi yegg si l'homme des dix plateaux par jour. <laughs> donc nuyoo bi nuyoo bi tey dafay nekk nuyoo bu spécial. Ah. parce que ki nga xamante ni moo génn fii. waay macha allah muy Papi Kos. Papicos ah, waaw Papisco. non c'est ça mu amel na ma man nag pour wan leen ne leen man je suis généreux je partage. Hmm. et ah non man je suis généreux. et je dëgg la yaa ma jox xaru tabaski. dañ ñoo solal ñun ñëpp. non Papikos. jeudi prochain incha allah. après Korité. ah. numéro euh, euh, numéro digg penc. Ah. Papikos mooy habillé. incha allah yi nekk fii yëpp. ci plateau bi Cheikh Omar bokkuloo ci place su Abbas la. <laughs> ay Abbas. wërsëg mooy fekk mais remplaçant day am remplaçant day am ah. qu'on souhaite vraiment un bon rétablissement. remplaçant day am sama jër ba parce que dafa xaw a tawat njaxbaar. Cheikh bu toon bàyyi bu toon donc Cheikh Omar euh, waa Garaaw dinañ la def. <laughs> parce que yaa topp di ma ruube. te yow xam nga ni maa la dàq ruube. waaw yow xanaa rapportu démb nga. bu la neexee. te rab yi yaa ngi yooyu old school anyway. man kenn old school ay ay rab ay ñoom is xam nga. ñoom ay sàmm pësi ñi ñi ay tournée tukki la ñuy def. yow <laughs> moom moom yow paase bàyyi ko rek sama guerre mën naa koo guerre yow bàyyi ko ba mu pare. kilifa àggali nga bàyyi Cheikh Omar Cheikh Omar tooñkat bu matul. <laughs> donc Papy vraiment Papy Kos c'est quelqu'un boo xamante ni c'est un patriote. ndeysaan yow. Papy Kos. depuis deux mille dix lépp lu ngeen gis yenn patriotes yi lépp lu ngeen gis ak quatre-vingts pour cent. Ousmane Sonko sol ko. Papikos moom moo ko ñaw. ah waaye. Papikos moo ñaw yére bi nga xamante ni keroog président Diomaye bi muy njëkk a dajeeg Macky ci Macky Sall ah moom mooy boobu gars di challenge jamono ji. merci beaucoup oh, donc Papikos li tax may def lii tey. moom ak ñeneen ñu bari ñu nekk Sénégal. Pa Moussa yegg vraiment comme ça ñu gisaale tamit sañse bi. c'est vraiment eh, sañse bu ñaaw la sañse. <laughs> sañse boo xam ni. may may jaarul ci Papikos. waaw boobu loolu jeex naa la. rupture attends eh, bàyyi ñu continuer ci papikos papikos yow dama la mer xamuloo papikos même man mi xam naa ko sax xamuloo papikos papikos day arab Papikos ñawal na la yow sa bos. Papikos maa leen nuyu sama xarit parce que ci laa njëkk a insister. yow sa bos. waaw yow tamit lu tax ngay def loolu. ah loolu ci loolu njëkk a insister nag moom Sénégal yëpp xam nañ ko. ñëpp xam nañ ni man balaa maa sédd. ñawal président nar ñoo ñëw sédd jigéen ba pare loolu moom ñëpp xam nañ ko dugal ci wax ji carrément. non au delà de loolu ci ginnaaw. waaw mais ñëpp xam nañ ci ginnaaw tojal yàq bi. transparence seen yoon newu ci bonne gouvernance transparence rupture tojal yàq. bonne gouvernance transparence du fépp de ah discrimination wala ah, discrimination positive la. ma ne du fépp de. oui bien ah, sûr ah, voilà ballon d'or bi la. léegi. papikos hmm. ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñu nekk Sénégal. parce que fii gars yi artisanat yi dañuy jàpp ni mooy ñu nekk village artisanal. mais kiy defar protège dentaire hmm. sax. Hmm. ci artisanat la. c'est plus de deux cents métiers. Mhm. donc ci discours démb président Diomaye dama gis ni dafa bàyyi xel bu baax a baax ñooñu nga xamante ni ñooñu la ñuy woowee secteur secteur nan primaire en passant mhm, mu ne secteur primaire euh, artisan yi artisan yi waaw fa informel quoi informel ñu jàppee informel ñu jàppee informel war leen formaliser war leen a parce que Papicos ak ñeneen ñu mel ni ñoom dañuy former ay plus de bi mu commencé ba léegi il a formé plus de deux cents jeunes Mm. ñooñu tey ku ci yaa ngi ñawal sa bopp donc jot na état ci gouvernement bi en tout cas moi je demande for euh, formellement à son excellence monsieur le président de la république ñu mel ni ñoom papikos ñu encadrer leen mm. ubbil leen ay entreprise ay écoles yu mag ñuy forme di jox formation suñu jeunes yi nga xamante ni bu boobaa aussi ñu gën tamit bay li nga xamante ni coton bi fii ci Sénégal ñuy defar suñ tissu fii dootuñu jéggaani di di sol yére tubaab parce que waa quoi dañuy ñaw lépp loo mm-hmm. xamante ni tey jii nii nit ñaa koy sol donc Papikos vraiment euh, jaaraama ak euh, ñeneen ñu mel ni ñoom mm-hmm. euh, moo def bii ma sol def na yeneen désormais définitivement dootuma sol leneen loo xamante ni ñoom papikos ñawuñu ko. macha allah <laughs> jërëjëf merci euh, euh, kilifa. ah ñu ñu ñëw ci euh, Cheikh Omar. Hmm. Ah, nekk fii di tooñ sànq ba léegi. Hmm. ku jóg nga attaqué ko yow front yëpp nga bëgg a tijji. non non damaa ñëw fekk fii ay grand yoo xam ne ay njaacaar lañ quoi ñu may jéem a teg xel.